képp koo xamante ni da nga am koy bëgganteek sëriñ bi nag doxul ci caaxaan soo ko bëggee takk soxna la wax dina la ko noobal ba ngeen juboo seen wërsëg dëppoo waaye sëriñ bi tamit dina yëngu ci wàllu faj rawatina tawat yi nga xam ne ñoo sonnal askan wi bu ci mel ni imorid ndoxum siti ba ci niw kattan ci sunu mbokku góor yi waaye sëriñ bi tamit yàlla may na ko lool ci wàllu kayit moo xam nga nekk ci réew mi di lijjanti ay kayit mu jafe la lool soo ko woowee incha na caa def saafara rawatina sunu mbokk yi nga xam ne dañoo nekk ca bitim réew am fa ay jafe-jafe ci wàllu kayit képp ku ko woo rek bu leen yàlla dëppalee incha allah di nga am saafara ci sa tawat boobee sëriñ bi nag ku bëgg a jokkoo ak moom numéro yaa ngi nii may waaj a lim muy 77 541 08 85 ma baamtu ko 77 541 08 85 beneen bi di 78 451 74 40 numéro yooyee la ñu mën a jotee Serigne Kamal nekk Serigne Lasrar bu yàlla baaxal képp ku jokkoo moom yàlla na sa aajo faju ñu door xibaar yi dooree ko ci équipe nationale beach soccer bi ñoom nag toog nañu ci coupe du bi tey ji la ñu doon jongante sunu ñetteelu match match boobee bu ñu ca amoon ndam rek dinañu wéy di des ca coupe du monde ba waaye dañoo nërmelu ci kanamu japon équipe nationale bu sénégal nag du sori ci coupe di monde bi ndax teel na ñu toog li ci des dañuy ñëw ci réew mi seetaan ko ci télé yi ñu jugee ci équipe nationale beach soccer bi waaye équipe nationale yu sénégal duñ leen bàyyeegum dañuy dem ci équipe nationale U20 bi ñoom nag am nañu coach bu bees tàq muy Serigne Saliou Dia daaf dafa bàyyi Serigne Saliou Dia mi nga xam ne moo doon tàggat équipe nationale U17 bi moom la ñu jël yóbbu ko ci équipe national u ba moom moo leen di tàggat moom Serigne Saliou Dia nañu ko ñaanal nag mu def foofe ay jaloore ñu juge ci Malick Daaf ak équipe national u bu Sénégal jël meilleur buteuru Coupe d'Afrique bi weesu tudd Nzoué moom nag ci réewu Guinée la dëkk waaye Coupe d'Afrique boobee nag ba mu ca demee dafa doon def ay mbuxum maanaam ay mbir doy waar waar naqari woon lool fédération bu Guinée équatoriale bi loolu amee sax teg nañu ko ay daan waaye moom ndogal li mu jël moo di tekki ay godaasam bàyyi équipe nationale bu Guinée équatoriale muy Nsoué nekk ki ëpp bit ci Coupe d'Afrique bii ñu weesu li mu jongante ci équipe nationale Guinée équatoriale lépp nag bu ñu ko boolee dina toll ci quarante deux match dugal na fa vingt trois bit waaye nee na tekki na ay godaasam ca équipe nationale ba. ñu jugee ci Nzoué ak ndogal loolee mu jël dem ca waa Arsenal ñoom nag tey jii bi ñuy amal seenub entrainement am nañu ñaari gan ca entraînement boobee muy Thomas Partey ak Fabio Vera dañoo amoon blessure waaye jamono ji wér nañu bokk nañu ci entrainement bi tey jii ñoom nag suba Porto la ñuy jàkkaarlool waaye ba ñuy dem ca Porto nag Thomas Partey yóbbaale ñu ko ndax nekkagul à cent pour cent bu dee Fabio Vera moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo dem ca Portugal ngir suba ñu jàkkaarloo ak Porto ñu jugee ci waa Arsenal ak seen ñaari xabaar yu neex yooyee dem ca waa Liverpool ñoom nag suba bu dix-neuf heures et demi jote Luton Town la ñuy dalal match boobee nag bi ñu koy waajal yogoon club jàkkaarloo na ak taskatu xabaar yi indi ñaari xabaar ci ñaari jouram yi nga xam ne dañoo am blessure muy Arnold ak sobos lay moom yoogoon club nee na ñoo ngi yëg tan bu baax te balaa yàgg dinañu dellu siwaat ngir jàppale ñu loolee la yoogoon club xamle tey jii bu mu jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi di waajal match bi mu am suba. ñu jugee ci yoogoon club ak ñaari xabaaram yu neex yooyee dem ca waa AC Milan ñoom nag seen défenseur bi tudd Pierre Kalulu dafa am blessure bu ñu sukkandikoo ci TV dello Sport nag mi ngi yëg tan bu baax te balaa yàgg entraînement collectif yi nga xam ne këlëbam ñoo ngi koy amal bu dara soppeekuwul dina ca mën a bokk doxal ndax mi ngi yëg tan bu baax muy Pierre Kalulu nekk defenseur bu mën la muy def xibaar boobu TV Dello Sport moo ko xamle. ñu jugee ci Pierre Kalulu waaye AC Milan googee duñu ko génn gum seen attaquant bi tudd Luka Jovic keroog bi ñuy jàkkaarloo ak monsa dafa am carton rouge ca match boobee ñi ëmb footballu Serie A ba nag jël nañu ndogal teg ay daan doomu Serbi bii di Luka Jovic nee na ko dina toog ñaari match yoo xam ne du ko football ngir carton ruus bi nga xam ne jël na ko keroog bi AC Milan di jàkkaarloo ak monsa ñu jugee ci Luka Jovic ak daan yoo yooyee ñi gàcc ci ay ndoddam dem ca waa Paris bu ñu sukkandikoo ci esport Paris googee ba léegi bàyyee guñu Frenkie de ñoom bëgg-bëgg bi ñu am moo